mais toujours est-il que mën nañ ko dindi délégué ñoo toogoon ñu waxtaan waaye tey mbooloo bi bu ñu d'accord nii léegi bu di delloo dañuy delloo lépp même bu ñu téyee xaalis bi ki juróomi at ñetti at muy liggéey mu def luy liggéey si mu ñëw jël ko bu ngeen d'accord di koy def 100 pour cent ñu génne 100 pour cent ñu jox parce que c'est l'Assemblée di décide ñun fii da ngeen ñu fi teg pour rek ñuy coordonner ñu orienter mais ci li ngeen xam ne moom ngeen d'accord ci loolu la ñuy dox il faut que wax naa ko toujours du ngeen toog fee ñu jël benn rido teg fii ñu ni nekk fii di liggéey rek bu ñu paree xaalis bi ngeen xam nu mu demee. loolu du social parce que ñu ut tabax bu woyof Chine yi dem jënd karo yu gën a yàlla xam ne sax karo kase sax nañuy def parce que habitat social mooy kër goo xam ne. parce que def ay néeg def ko ay ciment nit ki dem ay tapis ak leneen ak leneen loolu wax dëgg yàlla xëy na am nay jamono d'accord nañ ci. mais war nañ ko mën a améliorer te mën na ne xalaat la rek xalaat dong la parce que ñun bu ñu jàppee ni ñun karale salle karale néeg karale perron karale douche karale waañ loolu boo yoon loolu dañuy wax un logement décent ñun nag yemuñu si ay karo yu yemambaay déedéet nañ dem ci karo yi nga xam ne borom alil sax foofu na ji jëndee si karo européen waxtaan ak borom àdduna lépp waxtaan la yàlla nee lépp mën na nekk day fekk bëggu ko na doon lu baax rek ba demee si ñoom mais directeur bi recevoir nañu mu ni social bi ngeen di def man gis naa ci sama bopp man directeur général seen kër kër xaar dinaa leen accompagner même maison témoin dinaa andi carreau sanitaire yi peinture yëpp may leen ko ngeen defar maison témoin buñ si jógee dinaa andi conteneur yi teg ko fi sans logement yi kii daanaka mi ngi préparé conteneur pour ñu ñëw incha allah te léegi ñu ñëw mu teg tegagum ko di ñu ko dencal donc ñun du ñu denc suñu yoon dañu ko war donc moo koy def dépôt bu ñuy soxlaa benn kër ñaar tabax mu ni ma risque bu gars yi ñu jël ma dinaa ko jël muy lan muy bu ma jëlee samay karoog samay sanitaire samay peinture def ko seen kër yi ba pare bu ngeen ma fay la xam nga man dama ko dindi waaye nag gis naa sama bopp ci social boobu parce que xam naa ni benn banque du la nangu loolu benn fournisseur du la nangu loolu il faut nga am garantie loolu moo tax état bi andi le FOGOLOG le fonds de garantie des logements sociaux maanaam gis nga financement bu baax banque bi nee na il faut nga gar kat mooy sa garantie état bi ñëw taxaw ni man maay garantie jox ko 5 milliards mu tabax kër bi gars yi cotiser rapidement nga joxat ko 5 milliards institut donc loolu mooy garantie moom mu ni garantie boobu soxla ko seen kaw parce que sama œuvre dafa cher donc ku la ji ku la ko jëlal di la mën naa la ko jox lu ngeen am ngeen di fay ngeen daal tabax leen may andi seen matériel ngeen di posé ngeen di fay loolu nag dafa am lu muy signifié moo tax ma andi exemple boobu maa daf lay wax na ko ci procès bi ñu defoon il s'est engagé muy gor comme ñun ñu nit ñi fi nekk ñëpp ak ñi nga xam ne dañ fi nar a bokk parce que ñi ngi fi te ku fi teew ku nekk di nga dugg ci programme bi même boo amul carte parce que dañu amee seen xaalis bëgg dugg ñu téye woon leen donc ñun tam ñu ni ñi nga xam ne pare nañu pour jàppal nañu ci li ñu am nañu fexe bu ñu nit suñu kàddu man bokk man bii dem di signé kàddu bu may joxe ni mën nañ ko jox nu mën nañ ko dinañ ko respecté incha allah donc sama kàddu boobu yéen yéen ko mën a sàmp yéen da ngeen ko mën a sàmp mooy ñi ñëw suñu bureau yoof ñu defal enquête kenn forcé wu la ci dara nga ne ah man de fukki junni laa man par weer keneen ni man junni laa am kenn forcé la ba léegi de yaa borom fukki junni beeg juróom junni bi yéen a yem képp moom loolu la mën yow lii nga mën sa xaalis nañu jël boole xaalisam dem fay donc ñëpp ci yam waaye ku ci nekk yaa ñëw waxal sa bopp donc loolu nga waxal sa bopp nañu jàpp ni bés ni ki tey parce que nag nekk juñ si phase ñëw fii teg fii déedéet on est dans la phase concrétisation du projet d'ailleurs dans quelques jours ñu woote cérémonie bu mag def présenter projet président de la République taxaw nag di xaar li nga xam ne moo war a jóge ci état ñoo jàppale askan bi foofu lañ jëm moo tax il faut nécessairement nag ñu xam ne fi mu ne nii dañ naan caaxaan nekkuñu sax si mais ñu gën a farlu ci cotisation yi xam ne moom nañuy dajale bu dee 40 millions bu dee 50 millions tamit moom nañuy dajale rek dugal te ku dégg 50 millions xam ne bu kër gi dee fukki millions juróomi kër dong la mën a tabax te social xam nga loolu yi doy na waar ngeen xam ne loolu non seulement dajale nañ ko am na kun si jàppale mais tamit xaw na yéex donc boo amee colonie mën nga tabax fukki kër di dem fukk ak juróom ñaar fukk waaye la nga am nga may jox di ma jox par tuuti parce que doo ko jox lépp li nga am rek nga ko mën a jox parce que il faut nga jënd ciment suuf ak leneen ak leneen partenaires yi tabax il faut nga jox leen ba jënd terrain bi ba état bi doo na xam ne doo jëndati terrain. ba pare matériel bi ngay jënd dootoo fay ci douane te booba partenaire boobu ñu jàppale da gis boppam dañuy gis boppam ñu ngi gis suñu bopp parce que moom seen kado bi indi kado bi bu état ñëwee ba ñoom agrément moom matériel bi muy andi pour ñun du benn taxe dina woyof si moom mu ci gis boppam dina woyof si ñun également parce que bi ñëpp lànkee lu ñu def fournisseur yëpp moom moo jóg ni man damay def damay bokk damay joxe moo tax cotisation yi nag li ñu naan l'argent c'est le nerf de la guerre mooy xeexukaay bi moo ne andi bu fii te lu ñu am nag wax dëgg yàlla jiite na ci ñëw certainement war nañ ko mën a gën a téye parce que yàlla daf ñu faral dama ko wax toujours man depuis sept ans maa ngi ci projet bi xam naa li may wax parce que imaam bi da koy wax ajjuma bale mu ne dañ ñaan dëkk bi du dox dëkk bi kenn mën ko defar mais non yonent sallallahu alayhi wasallam am na xadis yu mu génne c'est pas vrai mën nañ ko defar parce que nit ñi ñooy defar seen dëkk li nit ñi bëgg bu dee lu baax yàlla da ci ànd mu am ba nit ñi seen kàddu naan habitat social jaay ko ci jaaf fi jën yi en 2015 2016 ñu lancé woo état bi état bi ñëw fekkee université ñu exposé wane affaire bi ñu demee mais dañoo tëjal suñu but yu bëri nit ñi dañuy fo boo demee ci ponk li nga xam ne ñoo war a dimbale bi ñu ñëwee ñu ni ñun géy nooy def ba jaay kati kati jaax am kër ñun loolu tax ñuy jóg ñun suñu programme nii lay tënkee ki nga xam ne am na moyen boo xam ne mën nekku ko téye ci banque banque génne xaalis muy dugal ñu jox ko kër ñoom ñëpp dem nañ fi yëpp ba si HLM programme Corosol 1000 logements j'ai été ñu war a signer convention pour ñu jàppale ñu ñu ni mën naa leen jox ñi am salaire ma leen kon convention mën nañ ko teg ci suuf parce que loolu du suñu programme ñoom programme bi ñu tënk loi la lu ngeen war a mën a accompagner la donc bu dee ñoom yoon ni buntu xatal yàlla def tey tey jamono ju ñu nekk ñoom lañ doon xaar pour démarrer yàlla téye ko HLM dem Sicap mënul dem promoteur privé yi fan doon yaakaar yàlla tëj ko tabaxul leer ci kaw kenn mu ko dindi yàlla dafa tëye fanu defoon seen programme ñoom ñëpp pôle urbain yi président jël ko def ko ci poste parce que la ko doon dañ maa bu ko dalal léegi nag ñoom ñëpp ñu jaaxle prix public kenn mënu dem mendum ñun ci kàttanu yàlla moo tax lu jar a téye mel ñun ñoo fi nekk automate las mel num ñun moo tax ki jiite coopérative nationale yi bi ñu toogee réunion xam ne y a plus de cent des centaines de coopératives dafa ni ñoom dinañ def conférence de presse ñoom président coopérative yi de au national union nationale des coopératives xam ne diaspora yépp ñoo ko jël Espagne un peu partout maanaam xew ñu ne en parce que ñun def nañu suñu projet jox ko président yéen ngeen jox seen projet jox ko président président recevoir leen jox leen premier ministre ñun tontuwuñu sax wax ma sax audience mais ñun tontuwuñu mais ñun xam nañ la tax parce que ñoom am nañu démb parce que état bi tamit am na nu ñu doxee tamit li ñu waxoon rek boo ko tegee ci yoon ñu gis la que yaa ngi koy teg ci transparence ñu ngi lay topp du xool gis ni fi nga jëm ànd nag ñoom la bëgg financer mën nañ ñëw dimbali la moo tax nag ñun tey li ñu am mu jafe loolu ay partenaires ñëw pour jàppale ñu ak sax ak sax partenaire financier boo xam ne xëy na li ñaan koy yor du saxat am na wax ne bu ñu ci duggagum léegi bu ñu ko wax ñu ngi dox ñoo xam ne taxaw nañu pour gunge ñu ci alal mais nag ki gunge nag day fekk nga def dara ak nga mën dara as tuut parce que lu ne moom mooy li ma toujours li yàlla mënul ñun doomu aadama mënu ko yàlla a le minimum y a minimum minimum bi nag amul contrainte kenn waxul kenn ku fi joxewul cinquante mille doo bokk déedéet wax naa ko sànq financement inclusif woo nañ keroog benn expert docteur bu nekk bitim réew sénégalais di expliquer RTS financement inclusif di wane ni adduna moo yàqu mais pourtant monde bi noonu la war a doxe maanaam ki amul doole ki am doole mooy jàppale ki amul doole maanaam kii naan mën naa joxe cent mille parce que am na si ñun ñu mën a joxe cent mille par mois am na ko xam ne cinq mille pourtant bu fay jotee day jël borom bi borom cinq mille bi borom dix bi dajale ko fay donc ñëpp participer nañ si bu ñu joxe ku ci nekk mën a am sa dëkkuwaay suivant bien sûr rythme de construction ni tabaxee moo tax nag lenn mun ci mën a génne moo tax ñu gën leen woo fii bokk na si tax ñu gën leen woo mooy cotisation yi waratul dakk chaque weer ku ni 10 lay joxe demal 10 000 andi sa de versement day tax état bi gën la jox cër parce que boobaa du ñu taxaw doo ñëw mukk chantier yi tax gis tabax yi taxaw déedéet tant que cotisation yi nga am va continuer à travailler di côté tabax rek incha allah ci kàttu yàlla parce que tey maison témoin ñoo ngay dalee dalee nañu benn bi bu jógee semaine bi ñu commencé def karo yeeg gis mu jeex ñu def lépp li ci am lépp li li mu war a mel dina ko mel ñu woo askan bi yëpp nag parce que li ñuy def nag dafa war a populaire nañ woo ñëpp incha allah une grande cérémonie de lancement du programme des cent mille logements comme que kenn lancé wul ñun war nañu mën a taxaw ñu lancé am na ñu fi lancé fan yee mais ñu koy rectifier parce que xamal nañu dañoo juum parce que loolu du programme bi président santaane donc ñun ñoo fi bëgg incha allah def ko la ñu nekk les premiers à lancé ko éviter presse national internationale télévision yi rajo yeeg tout même de le président de la république balaa boobu dem présenter ko projet bi mu xam lan la population bi indi pour participer ci développement économique et social parce que defuñu ko président dañ ko defal sunu dëkk sunu réew parce que il faut sunu doom yi ñëw génération yi ñëw fekk fi beneen genre doxini pas bi fi am ba léegi bi fi am ba léegi discrimination la discrimination la as tuuti nit ñooy bénéficier wu lépp ñooy jël suuf si ñooy tabax ñooy jël tabax immeuble luy waat ñu ko luwaat ñëw na pour dindi ko waa nag nañ ci téye téye luñ ci mën fexe ba mu dañ parce que ñun bu ñu xasee ba def noonu parce que pare nañu bu ñu paree fii continuer si région yi Thiès la bokk na parce que il faut nga maaye tout le territoire national au même titre que Rwanda ni mu def. askan bépp yeewandoo xam ne mais pourtant war man war naa mën a am kër kër ku nekk war na ko mën a am c'est un droit droit la parce que am na nga xam ne bu lay financé sax financement boobu doo ko fay am xam ne mën nañ gis suñu doxee ni ñu àndi ay milliards ñoo teg ko fi ñu liggéey te ñu fay dërëm boobaa cotisation daal di dañ nga dugg sa kër alhamdulilah parce que c'est un programme qui s'inscrit dans le social banque mondiale da koy def il faut oser mbir maa ngi fi mais nit ñi demuñu jëli ko mais kenn du leen ko jox nga loo wone mooy li ñuy def nii da ngay wone dara wane man mën naa bëgg naa bu ko defee kuréel yooyu à commencer par l'état ñëw fekk si surtout que président de la république moo ko digle moo ni def leen lii ma jàppale leen suuf si ma amee te jox ma ko kenn ku tegu si yoon bi ma génne jox na suuf si nga liggéey accompagne la leer na bala nga naan non duñ ko defee nii déedéet yow defal ba pare après nga ñëw taxaw li ci am incha allah yàlla mën na def nga jot si loolu daal mooy démarche bi nga xam ne bëgg nañu leen si gën a ñaaxaat ci cotisation parce que nag ci foofu nañuy ñuy attribuer aussi parce que sans cotisation yi mi ngi tegu dans la constat parce que une application boo xam ne dinañ xam kiy fay ndax mi ngi fay nañ ko xam aussi ah moo tax yooyu daal ngeen gën si bàyyi xel à part de maintenant fin mois bi ku ci nekk li nga waxante woon ak ñun nga ñëw respecté ko bu ko defee ñun tam ñu mën a respecté li nga xam ne moom lañ wax ak ñeneen ñi man foofu laa bu gënoon bëgg focaliser sama wax tey mais li ci ñëw kii ma dem Ndoye leeral na ko xanaa peut-être du ñàkk peut-être après buñ ci paree ay suggestion wala ay question ci yeneen fànn parce que bañ dugg si détail yëpp ñu gën fi yàgg aussi parce que am na yoo xam ne yu bëri xam ngeen ko pare dama si ñëwaat nii rek engagement bi laa doon gën a ñaaxaat nit ñi wan leen fan lañ toll aussi wan leen aussi également fan nañu jëm remboursement yi aussi du ñàkk am ñu jël kàddu wax ni li fi loi teg mbooloo bi takk fi moom la ñuy retenir ba léegi wala li fi bi teg mbooloo bi takk fi tamit war nañ ko mën a gën a ajuster tout dépend ci intervention des uns et des autres voilà donc loolu daal nekk na li nga xam ne moom laa bëggoon andi en résumé de xaar seen suggestion